dalleen ak jàmm seen seen bii di NGTV Sénégal kii di Ngagne jemba ture di ab juriste bokk ci partie bii di Pastef yëkkati na ay kàddu daal di koy jëmale ci procès bi nga xam ne ne dafa jaar tey ci diggante kii di Barthélémy Dias ak kii di Ndiaga juuf ne loole du lenn lu dul benn complot bi nga xam ne ne kii di Barthélémy Dias da koo tëkk ak état bu Sénégal ñu daal di koy jëmale ci kaw kii di président Ousmane Sonko. ne lu sabab lu tax mu wax li ni mel moom mooy que ne buñ gisee état bu Sénégal. soo a tàmbalee procès bi nga xam ne dafa jaar ci diggante kii di Ndiaga Diouf ak kii di Barthélémy Dias ba noppi bu see teg procès bi nga xam ne dafa war a jaar ci diggante kii di président Ousmane Sonko ak kii di Mame Mbaye Niang ne lu sabab lu tax ñu def li ni mel moom mooy que ne dañuy bañ patriote yi wax que ne dossier bu jaar ci diggante kii di Barthélémy Dias ak kii di Ndiaga Diouf moo gën a yàgg Cour suprême waaye dañ ko faa bàyyi di laal dossier bi nga xam ne dafa jaar ci diggante kii di président Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang ne li ni mel moom moo sabab waa Cour suprême daal di gaawantu daal di enrouler dossier bi nga xam ne dafa jaar ci diggante kii di Barthélémy Dias ak Ndiaga Diouf ngir ñu mun koo vider ne luy firndeel que ne kii di Barthélémy Dias ci complot bi la bokk moom mooy que ne ginnaaw ba mu demee ci émission bi ñu dippee faram-fàccee li mu fa doon wax yëpp moom mooy que ne ci coow li nga xam ne dafa war a jaar ci diggante kii di président Ousmane Sonko ak kii di Mame ñaa foofe dinañ fa daan kii di président Ousmane Sonko de telle sorte que dootul mënati nekk candidat si réewu Sénégal. ne leneen luy findeel tamit que ne état bi daa bokk ci complot boobee moom mooy que ne coow lu jaar ci diggante kii di Mame Mbaye ak kii di président Ousmane Sonko d'ordre privé la waaye recours biñ dugal ngir topp kii di président Ousmane Sonko procureur de la république bii di Abdou Karim Gueye moom si wàllu boppa moom moo autosaisiru daal di dugal recours bi nga xam ne ne ay ñaari nit la d'ordre privé ngir ñu daanaat kii di président Ousmane Sonko. te loolee yëpp ci candidature kii di président Ousmane Sonko lañ bëgg a nërmalal ci réew mii di Sénégal.